mu mel nii yi nga xamante ne moom la doon wax ci gannaaw yaayo leen shahadata baynikum ida xadara dafa mel ni enquête la boo xamante ne islam a ko tegoon pour nit ku dem ba faatu alal bi mu bàyyi ci gannaaw nuñ ko war a enquêté ba mu paree ca loolu nag kon mu mel ni enquête yàllaa ko njëkk a def xoolal lii wala lii du enquête fa in usira ala annahuma istahaqa isman ne ñaar nañu jog bu ñu jógee nañ leen toppaat di def enquête ci biir enquête ba bu leeree bismillah ñu bàyyi leen seen seede wér na waaye bu leerul nag mu ne ñu dindi leen indi ñeneen xoolal ma loolu kon enquête yàllaa ko njëkk indi bokk ci l'islam te nag mu ne la yawma yajma'u llahu rusul ar rusula ar rusula ma foolun ma yawma yajma'u llahu moo ko ñëwee ar rusula moom rek moo ko ñëwee moo ko sañ de wala déet woo sëriñ mu wuyu la woo Sëñ Tuubaa mu wuyu si la woo Cheikh Ahmed Tidiane mu wuyu la woo Cheikh Omar Fuuti mu wuyu la ñëpp ñëw xam nga ne Ablaye Wade allahu yàlla moom mooy dajale ar rusula mboolem yi bu fekkee mu sagara am na mooy bii xam nga léeg-léeg assemblée président bi dajee fa ak peuple bi président bu bëggee daje ak peuple bi ci assemblée lay dem parce que ña nekk ca assemblée peuple bi ñoo leen fal waaye léeg-léeg nag mu daje nag ak ñi nga xam ñoom ñooy bopp yi ca mbir ñooñu rek lay daje kon mu mel ni yowmal qiyaamati bu yegsee balaa yàllay dajeeg ñëpp dafay dajeegum ak yonente te wax na dëgg mooy xel li la xel balaa yàlla di dajeeg ñun dañuy wax naan waaw li ma leen waxoon def ngeen ko lu tax defu leen lu tax lii ak lii dafa war a woo ak yonente yi leen est-ce que jottali ngeen ba ku ci nekk wax waaw wax lu leer daje ba nag mooy lii yow mooy yëj ma wallahu rusul dajale yonente yëpp amul kenn koo xam ne dina ñàkk a fekkee daje boobu rusul yi ñaata lañu trois cent ñetti téeméer ak fukk ak ñett yonente bi nee na noonu lañ toll passé ko mu dajale ñoom ñëpp fa yaqulu daal di wax ne kon am jaay sa bokkuñ ci parce que amuñu mission ñi am mission la dajale ñi mu yónni woon te ko yónni nag ñeme nga koo laaj ana li ma la yónni woon ak naka laa la yónni woon moo tax bàyyi leen da ngay gis ko xam ne da koy yónni mu pare yónnante ba rek ne fees dem yónnante boo pare ah da ngay delloo ci yónni ne ko defee naa mooy yónnante bu mat yónnante boo xam ci ki la yónni matagul lu dul ne moom moo la wax ne boo pare nag mën nga dem ci say liggéey bu boobaa nag man nga dem kon yow ma keroog ba nga xam yej yajma allahu yàlla mooy dajale ar rusula mboolem yonente yi seydina adama dikk seydina ibrahima ñëw seydina moussa ñëw seydina insa ñëw Seydina Muhammad ñëw ñoom ñëpp ñu toog fa yaqulu yàlla daal di wax ne waaw maada ujibtum lu ñu leen tontu woon maa la yónni woon Aadama mu ne ko waaw maa la yónni woon Moussa mu ne ko na maa la yónni yow Muhammad mu ne ko waaw ne ko lu ñu la tontu woon maada ujibtum lan mooy li ngeen tontu wala lan mooy li leen tontu si lu leen wuyu xaalu yonente bi wax ne déglul wax laa ilma lana xamuñu moo tax boo demee nit yàlla bañ jeex seen liggéey du feeñ ci seen dund seen gannaaw bàyyi wallahi la azim wala de Sëñ Tuuba Cheikh Ibra Fall ki nga xamee ne moo la tuddee gis nga Cheikh Amada Tijaani ki nga xam ne moo la ñuy Abdul Qadir Jeylaani ki nga xam ne moo la ñuy tuddee Cheikh Alaaji Malik radiallahu anhu wala Sidi Alaaji Malik dafa naa noonu ngeen di wax ah seetal ñoom seen liggéey kañ la feeñ biñ joxee gannaaw moo tax du nit yàlla ba léegi gisaguloo dara ña ca gannaaw ba moytu ñoo koy jëriñoo ñiy dund ba moytu duñ ko jëriñoo nañ ci bàyyi xel nag mooy fekkee wuute dafay dal nit wala déet da jeg alaaji maandu xamuloo ko ba mu rëcc la moo tax ma wax leen ko ci xasida boobu xasida boobu noonu yabnal mahdi ah moytu leen de la daloon gaa yi àndoon ak Cheikh Ahmadou Bamba gaa yi àndoon ak Cheikh Ahmadou Tidiane la leen daloon dal leen la daamatu man sahaba Bamba wa Tidiane wala de moytu ko parce que da dund ak moom doo ko xam ban façon la nit la ngay gis niteem wala de ngay gis niteem parce que yàlla noonu lay def mais yàlla dafa nëbb ñettam yii dafa nëbb waliyoom parce que nit la yonente mu def leen ay nit nëbb nu booba ci seen biir doo gisee da ngay wax naan kii est-ce que moom la parce que nit la mali hada rasul yaakulu taam wa yamshi fi l aswaq lu tax muy am soxla lu tax lii di koy dal lu tax du am lii lu tax soxlaam fajuul yooyu def ci am lu tax mu feebar eh, dafay dal ko defee nga ne ay bu nekkoon moom kon lii du am dafay taxaw ñaan yàlla yàlla ne ko ma bëj ko def bul wax ne du nitu yàlla parce que ñaanal na ma gisuma dara hmm. ah déedéet hmm. bu ko neexee nangu hmm. bu ko neexee bañ wala du noonu parce que moom mooy yàlla kon yàlla dafay nëbb wali yoom ci biir gaay bi du noonu kon loolu lekk loolu am mboolem ambiyaay bañ jeex fal ma ne xaw ma kon moo lay won ne seen liggéey feeñul ci seen kanam dañ dem ba faatu seen liggéey door a feeñ wala déet xoolal ci Amadou Bamba Modou Bamba rek lañ ko doon wax wala déet te ñu bëgg a tuddee ñi rëy seen bopp ah bi bu ko teg place yàlla bu soobee suñ tuuba waate <laughs> ko sa place yàlla te fii la nekkoon gëmuñu ko li ko waral mooy def ko muuree bachariyatom bi mooy jëmmam bi la ko muuree nit la dana fàtte dana tiit dana jaaxle dana jàq wala déet waaw dana mer dana gis du ko neexul waaw loolu yëpp dafay am ci moom benn yooyu yëpp dafay am ci moom bu ko ne nga ne ah du moom de est ce que moom la wala du noonu moo tax ñu ne tey jii boo mooy boo doon ut nitu yàlla da ngay fekk ku tëdd ci biir bàmmeelam nga ne ko ñokket génnal yooyu la ñuy waxal te nitu yàlla yaa ngi fi am bagaay waaye yàlla leen nëbbee bachar ya toog kon léeg-léeg loolu am wala de moo ma noonu gis la même sëriñ bi ah ñi ñuy dund ak moom ñu bari xamuñu ko de xamuñu ko li am feeñul toujours liggéey nit yàlla balaa feeñ ca gannaawam la wala déet moo tax mu waxoon ko Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu ne gis ngeen sama tariqa bi te pourtant ndeysaan ca niñ ko waxee laa wax de ci taarix ne ñu mu jox tariqa bi matul ñeen fukki nit matul ñeen fukki nit kon taalibe yu wóor ñeen fukk amu ko sax waaja ba woon dafa ko fekk ki nga xamante ne mooy gis nga ko xatmul wilaya ci moom la ne mu ne da ko fekk ca waaye na ko fekke mooy dañu wax naan du moom wala de gisuloo ba mu faatu de wax ne mu ne moo faatu diw sangam dama sàng na dama julli kooku ñëw fekk ko fee mu màkk ñu ne ay fi moo woon ne mu faatu ñu ne man wax rek ñu ne dara amu xoolal ma loolu <laughs> wala de mu ne mubtala bil inkaari ñeen fukki nit ñu ne matu ko ñu mu jox tarika bi xoolal tarika bi tey ji moo woon wax ko mu ne gis ngeen tariqa bii da ngeen di toog di koy xool muy mees di dem mi di mees di dem di mees di dem te képp koy wax allahu akbar moom ci biiram képp koy jullit yaa ngi ci biiram yëg nga ko yëguloo ko wax la ko wax am na wala amul moomu noonu moo tax ma ne la mboolem nitu yàlla yi bañ jeex li ci gën a bëri tuuti rek ngay gis ci seen dund lañu liggéey waaye ay eh, boo dundee ci gannaaw ay eh, yàlla defee nga gudd fan wala de ci seen xasaayid ya ci seen téere ya ñu taalib ci li nga xamante ne moom mooy seen mbaax seen taalibe ya ñu yar ah na yàlla baaxee ñu moo tax yàlla ba mu woy yonente def leen ne maasa ujibtu waa luñ leen tontu ci seen message bi wala de lan moo nekkoon seen renvoi luñ leen tontu woon ci seen ñëw bi ngeen ñëwoon xaalu ñu ne laa ilma lanaa ko Seydina Muhammad ñu wax naan ashhadu an laa anna Muhammadan rasulullah bi léegi mu ne xamagul Seydina Abubakar wax na Seydina Omar wax na Seydina Ousmane wax na Seydina Ali wax na ak gaay yi ci topp yëpp sahaaba yi téeméeru junne sahaaba ak lu tegal ñoom ñëpp gëm nañu Seydina Muhammad Seydina Muhammad ah xaw ma de liñ ma tontu la war a wax parce que nit a mel noonu laa ilaha illallah ma summiya al qalbu illa li taqallubihi wala de yonente bi taxawul wax ne laa taxaw la la tarjo baadi kuffaaran yonente moo taxaw ni yéen laay wax bu leen dellu ci sama gannaaw doon ay yéeféer yedri baadi wi xaba baadi kon yonente bi gis na Abubakrin tuub gis na Omar tuub gis na Osman tuub gis na Seydina tuub waaye ku ko ne murtadu ku ko ko wax xanaa moom ba nga xamante ne seede na ne xaawulaay fil janna moo tax saaba yi ba mu jeex yëpp ak tuuti rek la ci compté ne ñii arjana lañ jëm parce que wóor na ko ne ñii duñu murtad waaye ñi ci des ñi ci des kan moo ko wax ne murtad moo tax ñemoo ñu tontu yàlla ne ah bàyyi woon naa fa diw sangam ndax bari na ñoo bàyyi woon bi nga joxe gannaaw ñu wol ba ko bari na wala de ci biir saxaaba yi amuloo ñu murtado bari na di ñi gëmoon naa Muhammad rek keroog ba muy faatu gannaaw bi dañu murtad Madina ñoo ci desoon ak Makka boo compté woon téeméer waxal ne ñaar fukki rek ñoo desoon mooy ñi Makka ak ak Madina ñaari dëkk yi ñoom ñoo murtadu li des yëpp murtad te ñoom ñëpp a gëmoon yonente bi kon bu yonente bi taa wax yàlla ne ko xaw ma di wax nga dégg parce que xol yàlla xol dafay wolbateku moo tax ne yaa muqallibal qulub sabit qulubana alal iman wala du noonu hakada cheikh amala cheikh amala dama leen wax ni ay qissa fii la nekkoon nekk nit ku baax comme ni ñu def suñ Tuubaa noonu lañ ko def himallaahi la tudd himallaahi taalib yi dañ doon daw ci àll kii sa ci la bokk papa ñoom surufu bii nii surufu jóob bii ci la bokk ndeysaan yooyu yëpp da daw moo leen indi noon ñoom ñoo defoon salaatul fatih mu ne fukk ak benn la gars yi ñaar lañ doon def daa ñaari sërët gars yi fukk ñaar waaye mu defoon ne fukk ak la mu indoon histoire bu mu mujj na gars yi sonal ko sonal ko bi tubaab bi ko yóbbu ko macha allah coono waaye taalibe dañ mujj tasaare ci gannaaw kon sëriñ boobu bu demee ci yàlla ne ko ana sa gaay dafa xam fu ñu mujj am na ñoo xam ne bi jaralu leen de Cheikh Ibra Fall keroog ba Cheikh Amadou Bamba demee xam nga moo defa defa ne du ñibbi fekk sëriñ bi dellusiwaat gis nga ko nekk fa comme dëkk teeru muy gis nga ko liggéey di def commerce lu mu am mu indi ko ci daara ji Touba boobu gaa yi nekk boobu ci daara ji di jàngal ñoom suñ fallu ak ñoom ci gis nga ko lu mu am indi ko foofu ci daara mm. waaye mu ne du ñibbi mm. te bi dellusiwaat mm. moom rek la woon ñi des yëpp dañ dugg dellu ci seen kii seen mbaxal yi gis nga njar yi mm-hmm. wala déet sëñ bi bu demoon ci air noonu ku mu ñëwee garanti ne indi naa ko xaw ma di xool dafay changé léegi-léeg nit ñi dana la wax ne waaw est-ce que jaral lañu suñu bakkan waaye bu affaire bi tàngee leen da dafay bàyyi de bu ko a essayé ci sa taalibe de seetal ci sa bopp rek bu tàngee doo bàyyi sëriñ waxal rek na wax rek na wax bu tàngee da nga koy bàyyi sëriñ bi na ñukk la bi laa kenn nag ku sa bopp sa bopp rek nga a force woo seet naa li moo lay won ne naa ak moom benn ci biir saxaaba yëpp amul ci kenn ko am yonente bi dina ko doon forcé ci dara ba mu def seet naa moom rek la doon forcé bu demoon ba tàng moom la doon forcé dogal nga dem defi mu dem defi moo tax alquran ñoo wax ko ne ko jóga nga dem xeexi waaye nag na nga xirtal jullit yi waaye nag laa tukallaf illa nafsak wa harridil muminin sa bopp rek laa la digal nga forcé moo tax ba Badar mu taxaw ana Hamza mu ne ko mu ne ko génnal ana Ali mu ne ko mu ngi génnal ñu génn wala de mu noonu bu njëma bi ma waqifu saaba nga xamante ne kenn rek moo fa war a génn xeex rek moo fa des Seydina Ali lay génn moo tax ñëw xanaa moo yonent bi ben lañu moom rek la doon forcé ci biir saxaaba yi amul keneen wala déet moo tax alquran sax dee naan gis nga ko ñëw waxee noonu ci moom kon moo lay wane itam say taalibe aha ñu la gëm bari nañ de njool say taalibe ni ñu bëree gëm la eh sëñ bi sëñ bi eh sëñ bi dañ nañu rey <laughs> eh kay eh demal de <laughs> bu leen wax ne dugg leen ci safara bi du sabotage nag nit ñi am nañu nu ñu mën a gëmee waaye seen gëm dafa am fu mu yëm mënoo assuré seen xol yi xal bu bay na osu bay min asabi rahma lii moo tax yonente yi ñemoo wax parce que xoolal Seydina Isa toog ak ñi nga xamante ne ñoom la gën a wóolu taalibe mi fukk ak ñaata lañ fukk ak isna achara fukk ak ñaar lañ taxa eh, nu mu tudd ñu tuddee alxawaarina isna achara fukk ak ñaar yooyu noonu ñoom la wóolu keroog bañ koy dàqee ñoom la woo ci wetam ku ci nekk ndeysaan mu raxas say tànk raxas say bopp defar la ba nga baax ñaanal la ñii la wax de te ñoo ñoo ko war ñoo ñoo ko wone ba mu toogee ñoom ni leen ah ci kenn ci yéen kan mooy ki nga xamante ne dina ma jaay ci ay dërëm ah sëñ bi seetaatal ngay wax waay ñun ñun ñii ñun fukk ak ñaar yi ah déedéet déedéet sëñ bi kese seetaat li ngay kese ñoo fi ñun mënul la jaay ku ko jaay taalibeem bu ponkal mooy Botros xam nga moom la ñu naan mooy taalibeem bu mag bi ci dina catholique Botros moo ne comme Aboubacrine ci ñoom parce mooy seen ponkal Seydina Isa moo ko ko wax de Seydina Isa moo ko ko dégg ma weddi bu ganaar bi sabo ñetti sabo da nga wax ne xamuloo ma dina ko wax de Botros seen Botros bi ñoom seen ponkal bi jotul sax suñuy ndaw abu Seydina Aboubacar Siddiq wala déet waaye Seydina Isa ne ko nee na da nga weddi xam nga ma saw fa tunkiru nii du du du weddi nag maanaam kufru saw fa tunkiru nii da nga wax ne xamuloo ma bugg naar bi saboo ñetti sab ne ko sëñ bi man yaa ma gënal sama lépp yow jaral nga ma lu nekk ma rey sama bakkan parce ci li nga ma fekk xam nga moom kii law nappkat law doo ko fekkoon ci kii kii bi noonu nu mu tuddati afayaat ci kii bi la ko fekk moo dañ liggéey tuddee ak sayaad taxawala min sayaadi samak ila sayaadi gis nga ko annaas daanaka ñu bari moo leen dugal ci diine catholique sin daf ko fekkoon muy muy mu nekk ci tefes bi noonu dikki lan ngeen di def mu a géej bi amul kii mun ne ko damaa bëgg a jàll mu xool ko xool ko ci kaw ci mu ko ah da nga bëgg a jàll mu ne ko mu ne ko yéegal ngay ne ko nga jàllale kii nii te du fay dara mu ne soxla mu ci moom xaaral ma jàll la bi ñëw ba ci digg géej bi nag ci la nga sànnil sa mbaal mu ne ko sëñ bi fii amul amul jën mu ne ko sànnil sama mu sànni mbaal bi waaye mënul sa xëcc mbaal bi ngir fees foofu la toppee nag Seydina Isa alayhi salaam wala de bàyyi léppam mu ne ko nag yaa ma jaral sama lu ne man mii duma la ma a weddi du ma mas wax ne man xamuma la mu ne ko waa baax na waaye noonu la ko defee de keroog ci li leen yàlla woon mu ñëw jàkkaarloog moom muuru noonu nag di nëbbatu bëggul ñu xam ko gis nga ko ci ñoom de ci ñoom ci ñoom ñoom parce que li yàllaa leen woon loolu mu ñëw di xool ñu ngi jël Seydina Isa ñu ngay watat ñu ngay dóor ñu ngay watat ñu ngay bugal gis nga am ku yuuxu ci biir mbooloo see benn xale bu jigéen benn benn jigéen ne ah kii kii xamee naa ko de kii ci gaay mi la bokk mu ne man bokkuma ci de bokkuma ci de dem taxawaat fee mu am ko ni kii xame naa ko ci la bokk ci gaay mi la bokk mu ne xee bokkuma ci bokkuma ci ci film bi ñu nii ni ko état bi xoole ci biir ay bët bu fàttale ko lam ko waxoon da ko dem ba weddi saw fa tun kiru nii salaasa maraati ñetti mu jóge fa dem di jooy rek lu mu ci man lu mu ci man état jaralu ko bakkan force wu ko ko <laughs> علم لنا خمون نيوك أنا أبو بكر منا لا علم لنا خمون مجو أنا أسيدنا علي منا لا علم لنا خمون مجو بس كده كوار الموينة لشان ذي دفع يومبو لشان ذي أكا يومبو سيدنا علي لم وقت نكرو بنيو سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دفع سنو الله منا خميت الخر كنامي تتقل خميت الخر كنامي لن ما ولبت خر كنامي خليني وسانزه خليني ولبتكم ولا دي منونو ay naa euh, nu mu tuddati Xuseynu ibnu Ali setu yonente bi ne nit ñi naa taxaw di jël jaasi jàkkaarloog moom luñ ko def luñ ko def te ña ko rëy ak ñoo ko bugg gënoo la leen bugg yow ni nga buggee Seydina Ali Seydina Xuseynu ñoom noonu lañ ko buggee waaye xool yaa noonu. moo tax yonente kenn ku ci nekk ndaxul boppam de dafa taxaw wax yàlla ne laa ilma lana xaw ma ah ana Abubakar bi nga bàyyoon xaw ma di fu mucc xol dafay changé ana Osman bi nga xamoon xawma di xol dafay changé ana Omar boobu ak ni mu mënee gëm ak ni mu gis nga ko bàyyi faale xaw ma di xaw ma fu mucc wala de parce que am na ñoo xamante ne yeggoon nañ ci seen degré mbaax te dañ leen tuumaal na dañu walbati ku mel ne que Saad ibnu euh, euh, Saad ibnu xam nga boo demee Aïcha dafay wax na kaana rajulan salihan <coughs> kaana rajulan salihan ko ñoom ñu ñoo ko toppul ca loolu sax xam ne problème mu politique la du problèm mu ngëm wala de moomu noonu kon moo lay won ne xool moom dafay changer laa ilma lanaa xamul dañu mujj ci gannaaw parce que léeg-léeg nit ñi boo leen di gis ak buñ la gis bu leen bokkuñ de boo ko bëggee xam xoolal sa jabar boo jàkkaarloog moom digal ko ak ni muy mel ak boo ko digalee jox gannaaw ni muy mel boo jàkkaarloog di koy woon ni mu lay wuyoo ak bu fekkee ne woor na ko ne gisu la ni mu lay wuyoo wala déet te gii sa jabar la wala de kon moo tax xol moom mëna ko assuré fen yonente nag ne maasa ujibtum yàlla ne leen luñ leen tont leen tont leen tont leen tont leen tont leen tont leen tont mukk ñun yàlla xamuñu lan la ñu tontu woon innaka yàlla anta yaay ki nga xamante ne àllamul ghuyubi yaay ki xam ne faddu ñu hmm. yonente xamuñu de kenn ñemul taa wax ne ah kay hmm. man woote woon naa hmm. amoon naa juróomi taalibe amoon naa fukki taalibe amoon naa téeméeri taalibe amu fa parce que xamuloo Seydina Issa li xew nii xewul ci gannaaw ki ko jaay ak Botros loolu mu def du ci gannaaw est-ce que ba mu jàkkaarloog moom man na ko man manu ko manu ko def dafay foofu dafay jaay bakkanam ndike de dajale na yonente yeb way kene la ci dab hmm. kene rek la ci soxla bi xam ngeen ko xam nga sar bi ci saru catholique seen bos la soxla parce que catholique yi feesal adduna bi aduna jeex ak ñom ni ñi yeewoo man de jaxal na ma de yeewoo ak ni mu bañe ko ko sonal demul dem nda ci jaamu yàlla directement mu jël état def ko mu yalla kannasu nañ de <coughs> wala xoolal loolu ni mu jaaradee yor rek te ñoom ñoo ko def feesal adduna bi yëpp nag mais yàlla la doomu yàlla la daf naa gis seen pa pa pa pa bikki ñoonu adduna bi jeex ñuy tëb te dëggal ko nag wax ko ci seen rajo yi def ko ci seen internet ñi déggal ko saxal ko def ko ci seen luwaay ne seen na ay sax yàlla la doomu yàlla la moo tax yàlla soxla ko li mu dajale yeneen te yëpp soxlawu leen parce que xam na ne Seydina Muhammad y a pas de problème dama iddaatu nasara ñu tel nañ ko wax ashadu anna muhammadan abduhu tel nañ ko leeral kon amul problème Isa itam naka noonu Seydina Ibrahima itam naka noonu kenn amul problème boobu waaye bennam bennam bi Seydina Isa te pourtant moom ba mu juddoo rek la wax ne inni abdullahi wala woowu ko ba mu juddoo rek la ko wax mu mag a gaa yi duñu ko ci lan lañ dum sa tuwéj dina abdalillahi yow sax pour yàlla yow nii sax du ñu wax nit ne jaamu yàlla doomu yàlla la ñuy wax sax benn kat dañuy amat di wax daal ñu ne jaamu yàlla mu ne mu ne jaam dafa dijji dañuy wax ne doomu yàlla mu ne ñoom loolu la ñu xam doomu yàlla yow mii sax doomu yàlla lañ lay tudd da ngay dégg ñoom day dégg seen waaraate ci de ñun doomu yàlla yi kon ñu mën a leen pour ñu yàlla ji déglu si mu ne is qaala llaahu ba yàlla jëlee parole yonente ku ci nekk innaka anta allamul xuyub te wax nañu dégg is qaala allahu yàlla daal di wax ne yaa Aysa yow Seydina Aysa yow mi lay wax moom la ci soxla ibna Maryama kuy déglu message bi di déglu discours bi di nga xamaale doomu Maryam la du sama doom moo tax benn waaye daf ko laajoon ne lan moo tax toujours bu yàlla waxee Isa du tu Moussa du tudd baayam du tudd yaayam Ibrahima du tudd baayam du tudd yaayam waaye Isa bu mu ko tuddee tudd yaayam dafay tetal boppam du sama doom doomu Mariam la moom rek lay tudd tudd ibnu Mariam Isa ibnu Mariam Isa ibnu Mariam ko tudd tudd ko tudd yaayam parce que pour wane ne moo lay wan ne yàlla bëggul ko tuumaal kon nit itam war na bañ ku ko tuumaal yàlla ko njëkk a bañ bi daanu ci suuf yàlla lañ ci musal mu ne ko yab na Mariam yow Isa xam nga yàlla ku baax la te du tooñ itam mu ne ko uzkur fàttalekul neamati alayka li ma la defal mm-hmm. discours bu xaw a gudd la nag yooyu wataar bi di jeex discours yàlla la du yomal du àdduna fi yomal kiyaamati la discours àllaaxira la mu mel ni yàlla def ñu ci mosal tooti balaa ñuy yegg àllaaxira xam nga loolu dafay am léegi léeg-léeg mm-hmm. discours président bi mu am luñ ci rotal ba léeg-léeg journal yi jot ci loolu nag dañ koy bañ fan la war a génne yéen nii dañ koy bañ waaw fan la war a génne waaye bu fekkee ne journal boo xam ne am na ko ci biir palais ba yooyu da koy rot si mu mu génneef ay yëpp dañ ko am responsabilité bu yàlla bu jege yàlla yàlla am lu mu ko rotal ci discours bi joxuñu ñu waaye discours bi àllaaxira lañ koy wax moo tax fa muy jeexee yow mooy fi mu commencé mu ne yow ma yajma'u llaahu rasul fa muy jeex mu ne qaala llaahu haazaa yawma ci saadiqiina ko kon wax bii di ñëw yëpp du waxtaanu adduna waa waxtaanu àllaaxira mu ne ko uskuru Insa na nga fàttale ko neemati aleyka li ma la defal ci ay xiiwal wa ala walidatika ak li ma defal sa yaay ma jël sa yaay def ko muy ku baax sellal ko baaxal ko te jafe na jigéen de mbaax ak a jafe jigéen man ma jël ko baaxal ko sellal ko sëy ni mu méttee ma musal ko ci njur ni mu neexee ma may ko ko te jaaru ci kon li ma ko defal bëri na de jël ko def ko soxna yu baax yëpp ci moom la ñuy roy ci moom lañuy joxe misaal ci adduna bi adduna bi jeex xanaa Ummu Teresa ci ci Mariam la ñuy joxe misaalu set Mariama la Azara jigéen bu set bu setee rek dañu wax ne Mariam ci àdduna yëpp nag xam nga Fatima sax moo gën a sell ñëpp waaye ci àdduna bu ñuy joxe misaal toujours ci Mariam la ñuy joxe loolu yàllaa ko def waaw loolu yàllaa ko def yàllaa ko def yàllaa ko ko may ku ci nekk xam lu ko yàlla di may bal bu ñuy askanee mbaax toujours ci kan lañ koy misaale ni Insa ni dafa baax moom moom moom dafa baaxoon moom ci dëgg dëgg nag li ñu wax ci moom yow dëgg la alqiyamul masihiya fi tasaamux kooku daanaka rek ñoom ñoom rek ñoo ko am dégg li mu wax mu ne ku la mbéj bii jox ko bii càmmoñ bi seen naa daa wax la ku la mbéj fii jox ko càmmoñ bi ne ko mbéjal ku sàcc sa yére jox ko tubéy bi moo ko wax <laughs> lu gën a baax li kur na nga fàttaliku neemati alay teg ca ba ngay dund ba ngay dund ba ngay dund attaqué nañ la def la lu nekk ma ñëw musal la sowe la xettali la kon uskur neemati alay waaye uskur neemati alayka seetal xam nga dama leen wax ne ci alquran toujours buy def neematu du ko def jamoo seetal ko ci alquran bi mu jeex neematu mufrad rek la koy def du def jamoor du wax ne am neemati rek lay wax benn la koy def wala de kon mu mel ni Seydina Insa ci biir yonente ba bañ jeex moo ci am rolu lii mooy uskur neemati aleyka nga ñëw nekk masalan jullit dund ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala de mm. dëgg la yonente yëpp nag gëm nañu ci xeetu yonente lañ bokk loolu moom na ko gëm hmm. yonente bi ci xeet yonente bi lañ bokk wala ci Isa am nag ñoom amuñu ko hmm. parce que Isa na julli jiite na jàng na alquran yooyu te yonente yi jotuñu jàng alquran ci xeet bi lañ bokk nag yonente yëpp ci xeet yonente bi lañ bokk parce que keroog lelatul isra woon meraaj julli nañ ci gannaaw yonente bi kon ñoom ñëpp ci saxaaba yi lañ hmm. te xam nga mbaax bu toll noonu yàlla du ko xañ saxaaba yi eh du ko xañ yonente yi kon yonente yëpp saxaaba lañ wala déet ñoom ñëpp a taw ci gannaaw keroog waaye Seydina Isa lam ci am nag ñoom amuñu dund na ak xeetu yonente bi jàng na alquran julli na tisibaar julli na takkusaan julli na timis julli na géej julli na yëpp wala déet nekk fardan ka afradil umma ummati muhammad sallallahu defal li nga bokk ci ummati muhammad waala walidatika ak li ma defal sa way jur bu jigéen ba is mu di koy tuddal si xiwal yooy is ba nga xamante ne ay yettuka maa la doolelee bi ruuxil qudus ruuxil qudus ruuxil qudus nag xaw ma foo koy firee ji ñu sànni la ay xeer waaye ruuxul qudus gars yi nañu koy firee tudd du jibril du jibril bul masa d'accord ruuxul qudus mufassirin ay muazamuhum dañuy wax naan mooy seydina jibril du moom jibril lay sa ruuxan lay sa ruuxan hatta yuqaddas jibril nuurun minan anwaar leer la bu ko yàlla bindee kon manul tilim kon lu tax mu tuddee ruux mu ne alqudus ruuxu bu sell ba kon am na ruux bu tilim bu fekkoon ne jibril ruuxul qudus la kon dafa am yeneen yu tilim wala di malayka yi leer lañu ma di la koy wax ne malayka manul génne dara ci wetam ruuxu moo mën a génne li ci wetam kooku yàlla adama la ko may fa nafaxtu fiihi min ruuxi mu deful ci keneen moo tax nga mën a taxaw jur doom dum ñaar ñett ba fukk yu jóge ci yow te sa loxo manqué wul sa tànk manqué wul sa bët manqué lu ci manqué waaw lu ci manqué sa doom bi am na tànk bu la gën a bu gën a ponkal sa tànk bi am bopp bu gën rëy sa bopp bi fu mu génne ci yow lay génne loolu ruuxu moo ko man moo tax bu ñu la waxee ruuxul kudus man wa ruuxul kudus bu fekkee seeni na adama mooy ar ruux da ngay dem ci alquran mu ne tanazalul malaikatu wa ruux dama lay firi alquran nag ngeen bàyyi ci xel téere mu fasiri ne dañuy dem di wax naan ruuxul qudus mooy jibril ruuxul qudus mooy jibril tanazalul malaayikatu war ruuxu xanaa yàlla moom ban façon la ne malaayika dañuy wàcc ak ruuxu ñu ne mooy jibril xanaa jibril bokkul ci malaayika yi ñu waxante événement bu toll noonu ci kaw suuf Seydina Adama ñëwul Seydina Ibrahima ñëwul Seydina Moussa ñëwul Seydina Muhammad ñëwul yow loolu mën na ne événement bu toll noonu ci kaw suuf di xew ñii yëpp xaa ibu na nekkuñu fi moo tax bu la tanazzalu malaykatu mooy jibril ci la bokk wa ruuhu mooy arwaahul anbiyaa'i wa arwaahul rusuli wa arwaahu haulaa'i al anbiyaa'i saalihin wal muminin lu mu defal ko mufrad xalaqakum min nafsin wahidatin waaw benn benn bakan boobu noonu moo mu defal la ko mufrad ko di koy askano ca adama alayhi salaam waaye nam mu ca malayka yi malayka laysu arwaaxan wa innama hum anwaarun waaye laysu ruuxan wala déet mm-hmm. kon moo tax ngeen bàyyi ci mm. wala déet nee na ruuxil qudusi mooy Seydina Muhammad bu sell ba sallallahu alayhi wa sallam wala déet ma jox la ci misaal mm-hmm. mu ne wa ayyadnaahu bi ruuxil qudus ruuxil qudus laa ko doolele woon ba lépp lu mu bugg a def rek mu def ko ca mm-hmm. ma ngi lu ñuy di jëfandikoo mm-hmm. ci seen lépp lu ñu def rek teg ca salaatu boo demee ci lasaraan dañ lay wax naan booy bind sa xaatim bi bi nga ubbee sala salaatu ala nabi nga bëri salaatu parce que boo bëree li ngay tudd yonent bi sala sallam da ngay dem ba sa ruuxu bi dafay jege ruuxu yonent bi sala sallam ba ni nga xam ne noonu la ndox di def ci tàngoor bu ko safara jegee noonu lay dem ba mel nga gis sa ruuxu dafay sell boo wàccee ci sa soxna rek leer yonent koy wàcc ko doo maju di ko doon la ko gën a bëril gën naa baax sa njaboot te ko fooyee de hmm. lu la tex ci sa njaboot sampele salaatu ala nabi hmm. wala de wata hmm. balaa nga dem ci sa soxna nekk foofu rek gis nga ko xaw ma noo def rek ba jëm ko xam déedéet jëla ko salaatu ala nabi te téeméeri yoon wala juróom ñaar fukki yoon donc sallallahu alayhi de moo tax mu ne la wax ayyadnaahu bi ruuhil qudus yi ma doolale ko wala de lépp lu doon def ci salaatu ala nabi la ko doon def kon bu leen ko fooyee ko kon Seydina Muhammad moo nekkoon ci wetam da ngay xool ku mel naka alaaji Salim Karamba Jaabi caf Touba fee ba ko Cheikh Omar ci Fouti demee seeti dañuy kisa boobu ba mu demee ba jubal dëkk bi dafa sumi dàll ñu ne ko sëñ bi lii pour lan mu ne damaa gis samay tànk di gis nga ko xuus ci biir leer moo tax ma suñu samay ci suuf di waxtaan ci seen waxtaan mu ne ko sëñ bi moom mu ne ko naam si Omar fu koy laaj de mu ne ko ñaata yoon ngay gis yonente bi par mu dal di mu ne ko ñaata yoon mu ne ko waaw mu ne ko mu ngi nii dafa gis Omar Fuuti gis ni yonente bi sallallahu alayhi di xam nag ndax paa mu koy gis wala gisu ko mu ne ko ñaata yoon nga koy gis mu ne ko gis moom heure bu nekk maa ngi koy gis di mu ngi nii mu ne ko est-ce que bu la fekkuloon fii dana wax ne maa man Afrique yëpp kon xoolal kooku ndikete gars yi yàlla yi fu ñu toll yonent baa ngi nii ci seen wet ayat naahu bi ruuhi wala de mm-hmm. lan moo tax Cheikh Ahmada Tidiane doon jàkkaarloog yonent bi ni yàkkasatan di koy xool nii du ci nelaw kooku ku mu joxoon ne barkel doo barke ayat naa durul qudus wala de waaye ku mu mere be xool la nii ne la nii <laughs> ayat naa durul qudus yàlla jàppale leen seen làmmiñ barke seen loxo barke seen lépp barke lan moo ko waral ayat naa durul fu ñu nekk yéen tamit mu ngi ni ci seen wet du takkale kook ñoom wala de kooku foo koy amee moo tax loolu bu fekkee ne am na ci nitu yàlla yi fii noonu la amee ci Seydina Isa bariwul ci yonente yi dina ne ku ci jàkkaar rek nga ne salaatu ala nabi mu ñëw mu toll di jàkkaarloog moom nii fu mu toll jàkkaarloog moom nii comme suñu gars yu baax yi ñuy jàkkaarloog ak Seydina Muhammad nii te xam nga ku yonente bi àndal na xam ngeen li ci nekk kay allahu akbar seede yàlla kon moo tax mu ne wa is ayatuka ba ma la doolelee bi ruuhil qudus yi kii nga xam ne mooy sang-sang yi mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foo toll rek mu ngi ci sa wet loo wax mu wax ko loo waxul waxu tukallimu naasa mm-hmm. mu ne ngay wax ak nit ñi mm-hmm. fil mahdi ci biir laltaay mm-hmm. loolu yu ñu ko def wala de dañu wax ne dañu ay ñeenti lañ moom moo toll ci biir laytaay defe naa gis nga waxtaan ba sax inni abdullah atani kitaba jaal ni nabiyoon jaal ni mubarakan ayna ma kuntu moo tax baax na ci xale nga digg koy bindal da arab sax fil mahdi wa ak bi nga demee ba nekk xale bu ko nga xamante ne li ci gën a bëri ci xale yu góor yi ñu nga ca caaxaan yow yàlla def la nga doon koo xamante ne sa yittee mu ngi ci daara kii tam bëriwul yàlla yàlla may xam-xam benn benn la ñoo xamante ne dañ nekk xale góor yàlla ubbil ko xam-xam macha allah mu di ci tibbee fu mu neexee bëriwul te Seydina Insa gis nga ko xale bu ndaw waaye dafa tar yoon tawraat ba mu jeex mag yi bu doon jàng sa def leen doon gàggante da jàng ci taarix ba nga xamante ne Seydina Seydatuna Mariama ànd naag moom joge Misra dem ndeysaan seeti mbokk ya ndeysaan ba jaar di ziyaare jumaa ja mooy kursul akdas tudde haykal Suleymaan naka la fa jaar gis nga ko di seetaale bokk yi ndiggante Seydina Isa dugg na biru ci ci biir anamu anamu anamu moog Yusufa ñoo ànd de Yusufa Yusufa Najjar ki ñu wax naan mooy kiyam ñoom kata dañu wax ko mooy papaay Seydina Isa moom lañ ko bëggoon a may waaye jotuñ ko fa may ñu ànd di ko di ko ba fekk ñëw fekk ko mu taxaw ci kaw mi mbari mu ngay tari rek ñëpp ñu ngay wax xale bi fan la jàng xale bii fan la jàng xale bi fan la jàng yal na yàlla may aateenaa hukma sabiyan léegi yàlla dana koy def wala du noonu may yàlla la moo tax mu ne tukallimu naasa ma may la nga mën a wax ak nit ñi fil mahdi ci biir laytaay wax leen lu leer wa kaxlan dem ba nekk xale lu góor ma ubbi sa xel bi ubbi sa dënn bi dugal fa leer nga mën a wax nit lu leer xam nga ko xamul manul mënta wax wala déet bu waxee itam njaakum rek lay wax wa if ak ba nga xamante ne allamtuka mala la jàngal alkitaaba mooy téere xam nga ko moy tawraat wal hikmata mooy injil nag wal hikmata wala déet ah déedéet déedéet indi na yooyu wa if ak ba nga xamante ne allamtuka jàngal naa la alkitaaba nga mën a bind nga mën a bind te bariwul woon wala hikmata sa xel mën a bënn nacc am lu mu ca la ndax laa yalamu laa yalamuna kitaaba illa amaniya moo ci gënoon a bëri mooy dañuy jàng ni dina far rek waaye xamuñu lu muy firi wala bu ñuy firi itam kaala wax na rasulullah yonent yàlla sallallahu yàll na yàll na yàlla julli alayhim wa sallama te ko jàmm yow ma keroog yaj ma wallaahu yàlla boole rusulay comme yooyu mu ne yow nag ma may la sa xel ubbee loo tii mu sa xel di bënn sa xel di nacc yàlla nañ ko yàlla may wa tawraat jàngal la tawraat nga mokkal ko aaya bu la neex nga tibb bu la neexee ngay jëlee moo lay wone ne fee bokk na ci alaama yu baax yi ci xam-xam mooy jàngal Qur'an ba mokkal ko ma ne ko côté bu nekk ma ne ko côté bu nekk am na ñoo xamante ne nag gis nga ko ay mbaam lañu mën nañu dafa nañu arrière ngay fexe man a arrière mën a départ alquran bi fu ci nekk nga mën ci tibbee aaya alquran fan la nekk aaya bi fan la nekk bi ak bi fan la nekk façon yooyu alquran daal il faut nga mokkal ko ci jàng wal injila may lay tam ta injil mooy injil bi xam ne moom la wàcce woon ci moom wala déet muy ñaata allamahul kitaaba wa allamahul hikma wa allamahu tawraat wa allamahul injil kon xam-xam la ko njëkk a may moom la ko tàggee de wala déet wa is taxluku mu door a tudd si yeneen yi mu ko may wa is ba nga xamante ne taxluku ba ngay bind mi na tiini ci ban ka xay at lu mel naka ka teyri picc bi idni ci sama ndigal de man yàlla yàlla jeexal na garaati amatul de bi idni ci sama ndigal man ba nga pare ci ba nga defaree picc ba ba pare ci ban fa tan fii nga daldi fay uf fa mu daldi nekk tayran picc bi idnillahi wala bi idni ci sama ndigal ci sama ndigal ma yow Insa ba nga jëlee ban defar ko defar ko ba mu baax ah gis nga tool yi ñoom itam nu ñu bëggee affaire de mu defar estati bu jag buñ pare uf ko mu doon picc am na ñu wax ne mooy lupalup bii xam nga moom dafa yéem xamuloo picc la xamuloo rab la man la lupalu moom picc la wala rab la xam picc dafa ne amoon ko dunk bii du nen te amul dunk moom dafay jur de ñu ne te dafay gis xaydu wax nañ loolu njugub dafay gis sa xaydu ñu ne moo tax mu ne la loolu maa la ko defal am na wax nag ne du njugub waaye daf ko defar uf ko mu naaw ba kenn gisatu mu daanu dee waaye lu manti doon naaw na wala de te ruuxu mu nga fa wala de mu noonu waaw danga bëgg ay yëgguñu déggu leen jaaxa nga boo dundaloon taalibe mu ne pareegu bañ ko ñëwee ne ko sa taalibe dina wala de waaye gars yi ba léegi dañ ko aha kañ boo ko soltee saafara boobu tibaate yu noo ñëwaaleem ko yooyu yëpp ayatu ka bi ruuxil qudus yi moo tax salaatu ala nabi bu ko kenn fooyee ci yéen bu ko kenn fooyee bu ko kenn fooyee ñaareel ba mu ne wa tubriwul ak ma mm-hmm. wa tubri u da ngay wéral al ak maha koo xamante dafa juddoo sel max te xam nga ki nga xamante ne mooy juddu juddoo sel max kenn mënu ko faj bu dee dafa def accident nag docteur dañ koy faj parce que dañu wax ne si dëj bi xaw a bàyyi wala façon yooyu wala cataracte dindi ko opéré bari na ku sel maxoon gisaat ne la defal ñu jàmm euh, te mu ne wa ak maha wala abrasa mm. bi isni mm. abrasa bu ñu la ko waxee mooy koo xamante ne mm-hmm. gis nga ko moom mooy moom mooy borom borom borom kii Eh, nu mu tudd eh, yëpp wa ayatuka id ayatuka bi ruhil qudus wa iz tuxrijul mawta ba nga xamante ne yaa ngi génne ña dee bi idni ci sama ndigal ñu ne saam sa na ko saam keroog ba mu génne dafa béjaaw ñu ko waa yow bi ngay dee bu béjaa amagul di parce mu ne damaa bi mu waxee ne jógal damaa foog ne àllaaxira moo jot sama béjaaw saam na ko dundal na ñu bëri moom Seydina Isa dundal na ñu bëri waaw fekk na waa joo xam ne dañu may jooy sama doom bi sama doom bi sama doom bi mu ne xejal leen mu ñëw tiimu ko ne dafay nelaw ñu ne ko bu yàgg nga ne nelaw jógal xale bi jóg jóg ak ay tànkam xoolal ma lool yàlla ne ne wi toxrejul mawta ba ngay génnee ña dee gis nga ko bi it na ci sama ndigal mm-hmm. kon moo lay won ne <laughs> ki dee dafa dugg ci géej de wala de am yàlla yërëm may ko kenn yaa wa is bokk na ca la ma la may ba léegi kafaftu ba ma ngëbee bani israila ngir bani israila an ka ba mënuñ la lor te dañ bëggoon pour rey la is ji tam leen indilee bil bayinaati ay yu leer indi leen yu leer indi leen kat yu leer ñëw fekki leen fa xaf leen fan noonu ba commencé na mooy ba mu leen fekkee ci biir kii bi ci biir jumaa ji gis nga ko ñi ñu nga ci seen gis nga ko kanaare ya ñi ñu nga ci lujum ba gis nga ko ñëw dugg si ci biir fekk ñu ngay gis nga ko xaalis bi ñu ngi ko rangaleen mu ne yu salte yi ngeen di dugg dugal ci jumaa yàlla jël yëpp toj foofu la ko commencé gars yi commencé di noonu nag waaw waaw ñu kii def ñu pare yàkkal suñu programme ci lañ ko commencé di sonal ñu koy boole lii la def lii la te lu mu def sàccul fenul njaalowul naanu sàngara jëlul alal jàmbur tappalewul lu mu def seen ay sax lu mu def deful dara waaye ngir bani Israel na duñ ko teg bët yóbbu ko ci kan gis nga ko Hérodos euh, buftu bani Israel an ka buñ ko jàppoon ni ñu koy def xoolal yar bu ñu ko doon dooree yar boo xamante ne ay weñ lañu ko kiyee bu ñu ko dooree ba xëcc ko jàngkat dafay gis ci lu bari pour mën ko kii waaw naa ko ci internet moom xaw ma ci loxo kan la mu daal xaw ma ci loxo kan la waaw waaye bu nga gëyee mën nga si daan ci ordinateur ak nga xool ko am na tarjama ci suuf ak foofu itam da nga gis sa tarjama bi mu waxee ne sa yaatiku Muhammad Mahamada yooyu yëpp ak waaye tara dañ ko dañ ko tara denu mu azza kon wa is ba nga xamante ne kafaftu téye naa bani israila ngir bani israila an ka ba mënuñ ci yow dara is ji itam bil bayinaati ba nga leen indilee lu leer kooku xéewal la xam nga moo tax suñ tubaab bi mu ñëwee mooy indi màggal bi sante ko yàlla parce que dem na ba ñëw te see dem ñëw <laughs> caaxaan du caaxaan de xéewalu yàlla moo mën a tax nga dem ñëw parce que ñi fa dem te dellusi dañ bëri parce que gisoo Cheikh Imalaaji moo leen di wax ne dafa dem te dellusiwaat bari waaw kon moom bu mu demee ba ñëw mu ne moom mu sant yàlla ñu santalee ko yàlla mooy màggal bii nii parce que gir ba ni saa mucc ci seen loxo ak a jafe xoolal Seydina Muhammad mucc ci seen loxo ku ko rek Seydina Muhammad dañ ko rey de boo ko xamuloon tey na ko xam jàngaloo ci taarix ñu ne yahud dañ ko tegaloon xar bu ñu poson keroog xay ba lekku coow waaye mujj wax ne arrêté waa ji mu ne moo ci def poson ñu ndaw si wala de keroog ba mu faatu xam nga lan la wax mu ne depuis renoo ren damay yëg dara ci sama xol bi dafa mel ni posoñ ba ma lekkoon ca xar ba heure bi jamono bi nag la yegsi na pour boutique war a dagg moo tax nabi wa ko rek xam nga posoñ dañ ko lekk mu dem ba at mu door la rek nit dina naan posoñ dem ba fukki at mu door ko rek ku ko rek posoñ baa ko rek kon yahudi ñoo rey Seydina Muhammad wala de musal na ko ci seen pexe yu bëree bëri matal na itam nubuwa bi ba mat risala bi mat na xam nga ndaw si loolu la woon bu dee ne doo yonente nga dee beneen ñu noppal bu dee yonente nga yàlla dana la ko wax jotal na nubuwa bi yon nubuwa bi jeex akmal atmamtu aleykum nematu akmaltu eh, akmaltu lakum ya al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu aleykum nemati mat na waaye nag ñoo ko rey wala de voilà ci seen loxo loolu du du lu rëy mu nga noonu wa id kafaru bani israil anka is jita bil baynat qaala alladina kafaru minhum ña ca yéefee ya ci seen biir ne in haada lii illa sihru mubin njëbër rek la njëbër wu leer nañ bu amul na bëtu li yëpp ko doon def waaye ñu diree tuuma ci mu mel ni yàlla dafay ñëw xabte bu métti lu muy na nag waaye mel ni daf koy raayagum xam weñ ni muy méttee mu bëgg a dugal ci sa biir yaram bi mu mm-hmm. di lay def nii jël alcool bi di la koy raayal nii mu di ba lay def mm-hmm. mm-hmm. <laughs> ni ma ko ragal bi sigi ant loolu war a dugg ci yaram weñ mu ubbee wax bi nii yàlla nag ku baax la que Seydina Insa du il faut mu wax ak yi nga xamante ne moom la ko defal te dëgg la moo ko ko defal wala déet xam nga yàlla moo tax Seydina Isa bu ñu demee ci biir wax Seydina Isa gañe ko Seydina Isa moo koy gañ waaw waaw yàlla li mu mën xuloo yëpp waaye Seydina Isa moo ko gañ parce que waral mooy fi mu ubbee wax bi mu koy jàngal ay tontu te egseegul ci xuloo bi <laughs> yàlla noonu lay def bu la nalee defaral c'est te jii nii masala bu la buggee yóbbu Banjul daf la yombalal bi noonu la yàlla di defee yàlla toujours noonu lay defee waaye bu la naree toroxal nag daf lay yónni Gàmbi nag tere la fee naka jël séeréer bi nag diigal ko wala créé fa problème yàlla nii lay def mu ne lu tax demuloo yàlla nii la dafay ñëw ne yéen ñëpp jóg leen ngeen julli ji jël tawfiqam nag jox ñu baax ñi moo tax boo déggee laa xawla nu mu tuddati xay yàlla salaat yi nga war ci teg laa xawla wala côté la billah suma bu rek moo ci ne mooy julli bii nii aw ma pexe pour jóg dem defi ko lu dul illa billah al alil azim wala de yàlla def lay woo ci biir julli ba ñoo may kii tawfiq mu jóg dem julli ji ke mayu ko tawfiq bu yoma kaa mu duma ke bi mu bugg de te yow ma la may tawfiq yàlla bu la buggee jàppal moom moo tax mu teel a xamal Seydina Isa ay tontam wala muy dugg si ci biir xuloo bi moo bu ko tontoo mu d'accord parce que maa la defal lii maa la defal lii Seydina Isa nag nag ba nga ma defalee lii ci dama teg ñoo ma teg sa waaye man teg ma foofu sama bopp mu tax fa qaala mu dal di wax alladina kafaru min ña cay yéeféere ci bani israil inna haada lii ñuy gis daal in haada in mu la in haada lii ñuy gis nekkul illa lu dul sihru boo xamante ne mu biinu njëbër bu leer nañ la lii maa la ko defal waaye yéeféeri taxul gëm la kon moo lay won ne ñi gëmul Seydina Isa yëpp ay yéefar lañu bokk ca yahud yi nga xamante ne gëmuñu ko ba tey jii wala de waaye bokk na ci ñi gëmul Seydina Isa mooy ñi mu wax naan kii mooy Muhammad gëm leen ko ngeen topp ko ñu bañ ñooñu ba léegi gëmuñu ko weddi nañ ko allahumma salli ala sayyidina